xam <laughs> nga parfois Sénégal ça me fait quand même. Mhm. Euh, euh, la politique au Sénégal parce que en fait on nous divertit toujours ah. dans dans la scène politique au Sénégal bon man damaa mhm. jàpp ni ba peut-être xorom si. <laughs> divertissement la rek on nous divertit de jour en jour. Ah, malheureusement. Uh-huh. mais li ma jàpp mooy cest dire euh, Senghor wax na ko jaruma woon sax débat bu bëri. Mhm. conseil moom képp ku xam-xam ay recours Mhm. c'est-à-dire ay décision am mënoo ko attaqué. effectivement voilà et on est terrain politique. Mhm. mënoo fexe ba Sénégal duñ fi galgal ay mbirum politique. Mhm. di jéem a xañ ki xañ kale mais man. je me toujours dit que on doit laisser tout le monde dem élection parce que di nga les Sénégalais il faut ñu xam lu élection député. ak lu élection présidentielle. effectivement Sonko tête de liste Barthélémy tête de liste dire. ça veut absolument rien dire pour man li am solo mooy liste bi. ñan ñoo fi nekk ñu ngi wax. Euh, parce que les sénégalais se penchent sur les têtes au niveau sur les têtes de liste mais élection député du tête de liste am ko jiitu mais ñi composé liste bi ñan la parce que ñoom ñooy ñu toogal si pencum réew mi. Ousmane Sonko donc mënul doxal assemblée nationale. Hmm. Barthélémy Dias donc mënu ko benn tête de mënu ko. donc moo tax ñu teg 53. teg ay département euh, chaque dans quarante-six département la teg fa ay tête de liste mais donc dans logique on devait même mettre la photo des têtes de liste parce que pour man. Mhm. élection yii di nar a ñëw Sénégal mais niveau national. Mhm. mais pour man bokk naa si ñoom proclame dañ ko war a mhm. parce que ñu bàyyi yi dem jongale dans les départements représenter seeni gox réellement. Ah, parce que ñu bëri. ma daaneel ñu bëri dañuy dañuy. dañuy làqatu ci ay liste nationale mhm. et ils font absolument rien man j'aurais bien aimé liste nationale les 53 ñu présenté leen au Sénégalais ñu xam ne ñii ñoo leen di représenté ci pencum réew mi mais Sénégal on nous divertit avec des têtes parce que dañuy utiliser cette image politique pour mën a booster c'est normal ku nekk da xool nooy booster sa camp mhm. mais nañu nañu xam Sénégal aussi du affaire d'élection député mhm. du affaire tête de liste c'est bien beau de parler mais li am important mooy est-ce que liste bi ñi ko composé tey jii ils ils seront là pour les Sénégalais ou bien ils seront là pour les têtes de c'est la question que les gens doivent donc du man ñu bàyyi ñëpp dem alhamdulilah lay wax les Sénégalais voteront en âme et conscience kan la bëgg wala ñan la bëgg ñu toogalee pencum réew mi mhm. te pour man il faut pas que ñuy bàyyi toujours tête liste yi nekk fi naan ñoom ñooy expliquer aux Sénégalais a pour la ñu mhm. investir la exactement yow si bopp sax war ngaa xam wax sénégalais moo tax investir la mhm. liggéey bi il faut ñu Sénégal commencé tàmbali képp ñu investir moo xam titulaire moo xam suppléant parce que tête de liste au niveau des on les entend jamais mais ils sont mhm. extrêmement importants c'est important di ñu nekk si département ñu xam ñan parce que ñoom ñoo nar a far ñoo ñoo nar a toogal as seen askan foofu si pencum réew mi na na fa jooyanti seen i problème donc man li ma jàpp mooy démocratie Sénégal permettre na ku nekk dem les sénégalais en âme et conscience ñu mën a wax nit yi. Mhm. Euh, exactement kan la ñu ñan la ñu bëgg ñu toogal leen man damaa gëm une assemblée multicolore man gëwuma assemblée unicolore gëwuma ko. li ma mhm. gëm mooy ñëpp si am wàll mooy artisan yi mooy xeetu couche sociale bu nekk da lay war a représenter à l' nationale. d' très bien c' est da nga bëggoon dama fay quoi ça. que je voulais lui poser mooy dafa wax ay